ah jere ngeen jox mbokk amateur tay ñi ngi fi ci stade jom Lamine Gueye de Kaolack drapeau bi nga xamne mom la ñu tuddee ndeysaan kooku nag moom mooy sa pronet xalé yaa ngi noonu sëgg ci biir geew bi animateur régler sa micro ndaysan Gan Seras ak fils de Pape Diouf ñay ngay lewtoo fils de Pape Diouf mo ñu won gannaaw Gan Seras wan ñu kanam xalé yaa ngi xale yaa ngi Leewtoo fils de Pape Diouf gaan Seras jàppante nañu gaan weñ na ko gaan sol na ko weñ ko lan la bëgg lan la bëgg attention gaan a ngi koy jaay doole gaan a ngi koy jaay doole attention luy am luy am attention luy am luy am gul de dara amagul dara amagul gaan Seras li ngay bëre est xam nga ko booy bi ngay bëre dafa mën a bëre fils de Pape Diouf daan na ko ndaanaan la ndaanaan la la ilaha illallah fils de Pape Diouf daan na gaan Seras fils de Pape Diouf wa kontan munu ma wax nga ñi aw ma seen fay barki alxuraan karim ñi ni ñi la am barki alxuraan kii dafa bari wax di wax rek man xale bu ndaw la gi nga man ponkoli la solo bo solo ma ñi ki dafa bari wax duma ma moromam barki leero alxuraan téeméeri ko ma ma daan ko jëli boko adama reeron nak ñëwaat na ci biir lamu ji ñaari xale yoy ngeen di gis ki ñu won gannaaw moy xale bi ñaan rek rek nek ci yatma ak ali jànq ci kawla mbolo ki ñu won kanam kooku mooy booy bi nga xam ne moo jóge occas ñu naan ko Mbow sa géej borom mobilisation bu doy baa ngi noonu toj na nen tojaan na nen Reug toj na ñaari nen toj na nen ba tojul tojaan na ko léegi nag combat baa ngi noonu ci diggante Reug Reug ak Mbow sa géej ba bar na Mbow moom moo laal suuf Reug Reug xaw na ko ëpp poids Reug xaw na ko ëpp poids ñi ngi léew to Reug Reug moo ñuul Mbow sa géej xaw a xonku maanaam xees ndeysaan xale ba kan moo ko indi ñu na Batousta ca mobilisation bu rëy ba Mbossé Géej laay lay la la xale yaa ngay lewtoo fii ci stade Lamine Gueye bu Kaolack ay waay lamba ngi waay ñi ko namoon ñëpp a koy seetaan stade bi fees na Fatou Baye Fall a ngi ay waay Moussa Diama nga ca kaw jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañu attention jàppante nañu ñoom ñaar jàppante nañu Reug Reug Mbossé Géej jëli na ko Mbossé Géej daw na song ko Mbose Mbose Mbose Mbose lan la bëgg Mbose poñ na ko daan ko laa ilaha illallah Mbose Gueye daan na Reug Reug ba toog ca kawam Mbose Gueye daan na Reug Reug ba toog ca ci lamb ji ñu waa ci lamb ji sama waa ko ñëpp ñëw waa ASC Xandaalu sëñ Fall mënu ñoom Ibulaay Mbay ñoom Baye Modou Mbay ñëpp ma ay partisans jóge ba Dakar ñëw kon lamb ji waru ma ko mun a ñàkk waa ko sama jabar yi mag ñëpp a ñëw sëñ Fall Diaw sëñ Fall mënu ma ko waa Léona maa leen di sant di sant xalifa bi di sant sëñ Babacar Mbacke ñëpp maa leen di sant barki maam Cheikh Fall damaa kontaan. waaw li ma bëre lépp Ogasa waxoon naa leen Mbossé Géej wax naa ko ko keroog ma ne ko yow da ngaa jël avance bi tax xamoo ma boo ma xamoon doo jël sama avance. te nag gars yëpp pare ñëwaat naa danaa dem root entraîné ñëw fekk fi samay morom lëfal leen ci kàttanu yàlla. ndeysaan. Pap mayal mo kay arbitre souffle na ci diggante tampon mo ñu féete jor ki ñu fété chamon taxaw xess moy mooy bi nga xam mom la ñaan bébé jeen bokku ci aljuma amna lu mu sanni amna lu mu sanni ñi ngi lewtoo ñi ngi lewtoo tampon sanni na direct attention lu yam lu yam lu yam tampon dor na ben dor waye dafa taxaw Bébé Diène a ngi koy songu Bébé Diène a ngi koy songu attention tampon Bébé Diène luy am am tampon Bébé tampon Bébé Diène Bébé Diène moo ñu gannaaw tampon mooy reculer wan ñu kanam door na benn coup attention arbitre lan la wax arbitre lan la wax yóbbu na ko yóbbu na ko Ardo Bébé Diène yóbbu na ko Ardo Bébé Diène yóbbu na ko Ardo Bébé Diène na Ardo tampon ndeysaan Bébé Diène yóbbu na Ardo tampon ñu xool nag luy Ardo di wax ndax dina mën a continuer combat bi wala déet fii Diass Diom Lamine Gueye bu Kaolack ndeysaan première journée drapeau bi nga xam ne Yamoussou production moo ko tëgg Bébé Diène a ngi noonu ci biir géew bi di xaar tampon ñu xool ko ba xam dina mën a eggale combat bi wala déet ndeysaan Ardo ngi noonu di ko xool Ardo ngi koy xool Lala la Ardo di wax lan la Ardo di wax ndaysan ta tampon mo déclassé li nga xamné moy mooy bi te moo ko prolonge waye Bébé jan xajna combat bi da ko tek ci yoon motax dor bi bi mu ko dor mu blessé ko ndaysan ñaari xala yaangi nonu tampon ma nga ci Ardo ñang koy fajj Bébé jan ngi ci bir mi ngi def ay souplesse Bébé jan mi ngi def ay souplesse ndeysaan Bébé Diène ngi noonu arbitre woote waat na arbitre woote waat na nee leen ñëwaat leen da di bare ndeysaan Bébé Diène tampon suuf la waat na xale yaa nga ca waat tampon jël na suuf Bébé Diène taxaw na di ko déglu Bébé Diène taxaw na di ko déglu aj na garde bi ca kaw moom tampon Bébé Diène ngay leewtoo Leewtoo ba dig na Bébé Dièye ngi wër mi ngi def ay jeu de jambe lan la bëgg Tampon taxaw na ci ay tànkam taxaw di ko déglu Tampon taxaw na di ko déglu Tampon taxaw na di ko déglu ndeysaan Bébé Dièye ngi noonu Bébé Dièye Tampon daw Bébé Dièye Tampon daw Tampon déclassé na coup ndeysaan Tampon sànni na benn coup léegi tànn sànni waan attention Bébé Diène na ko Bébé Diène a bu jaar yoon tampon ngi dóor attention attention attention ah Bébé Diène a ngi xeex xeex bu am yoon de attention mbaa dóor mu daanu du am mbaa mu daanu du am attention luy am luy am jàppante nañu sol na ko sol na ko luy am sol na ko sol na ko luy am luy am daan na ko tampon daan na Bébé Diène daan na Bébé Diène laay lay la laa waay lamb waxul dëgg waay parce que dama beure dama beure ak tawat ñu bindoo ma robot médical CNG bindal ma bénn kër bo xamné ne da nga wara beure for force ma ñëw beure ak sama feebar si biir beure bi la gaño ni ma dem ci message CNG bi nako père sama bët bi mu ngi metti te mu ngi jam ci biir mu ne ma da ngay jël juróom nga nga bëss ko ci dama foog ne gaño ci lamb làmb mo la wara jël à charge wala mo la wara a assuré mais bët bi gaño ni ci lamb ji mu ñow wax la ko nga ñoo ñoo nga ne ko ay da ngay jël juróom nga bëss ko dem xawma ma fu ñuy fajee bët mu mo wara kamu jël asar xam nga lamb kaw la dem war nañ ko xolaat quoi ñun ay ndaw lañ dañuy góorgóorlu kon dama ma mëna a ñoo bëré gañu ci biir lamb ñu ñu war ma jël asar né ma dama nga faju jaara ci yoon bi ñu né ma ay da ngay jël juroom bëss ko bo jëlé juroom bëss ko sa bëtt yaq fa loy wax ndeysaan drapeau Djibi jaar directeur digënté diggante Ndefleng mo ñu won kanam ah Boy Sen mo ñu won gannaaw ñaari xale yaangi nonu Boy Sène moo ñëwoon gannaaw Ndefleng Boy Sène arbitre gi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ soufflé na diggante Ndefleng Boy Sène Boy Sène ñëw na kabar na Boy Sène ñëw na kabar na Boy ñëw na kabar na kabaraan na kabaraan na kabaraan na Ndefleng Boy Sène fii ci stadium Lamine Gueye bu Kaolack Ndefleng song na ko Ndefleng dem na jëli ko nee na ko taxawal ñu bëre ña ngay lewtoo ña ngay lewtoo Ndefleng Boy Sène ña ngay lewtoo ndeysaan Ndefleng Boy Sène Boy Sène moo ñu wan càmmooñ Ndefleng wan ñu kanam round d'observation fii ci stadium Lamine Gueye bu Kaolack ñaari xale yi ñaari ndaanaan yi san xale yaa ngay lewtoo rouge blanc yee ngeen di gis yëpp ndeysaan ñoo indi xale bi nga xam ne mooy Boy Sène jóge ba Mbaba cel ko ñu Siteu kan lay bëreel ñu ne la grand champion Ndefleng borom Kanda ndeysaan combat bi ñuy bëre ni mooy combat bu mag bi ndax xale di booy seen moom ak Siteu ñoo dugg siyendoo ci lamb ji ñoo bokk koñ xale bale di mooy avant premier grand combat bii buñ ko baree ba pare dem ci grand combat bi ndef leen écarté na dóor na song na dóor na ña ngay xeex ña ngay xeex ña ngay xeex ña ngay xeex laa ilaha illallah xeex ba metti na xeex ba metti na de xeex ba metti na xale yi xeex nañ xeex bu méttee méttee méttee méttee méttee méttee ndef la na ko xale baa ngi noonu ña ngay bërewaat door na ko door na xeex ba xeex ba xeex ba xeex ba xeex ba attention ña ngay xeex ña xeex ña ngay xeex lan moo am ña ngay xeex xale yaa ngay xeex laa ilaha illallah stade bi nangu nañu stade bi nangu nañu ñoom ñaar ña ngay xeex ña ngay xeex xeex ba metti na laa ilaha illallah ilaha mu ja neex na xala yaa ngay xeex mais bu leen topp xeex bi xeex bi su ngeen ko toppee bërëbee ko gën ña ngay seere lapp taake yi lapp taake i moom gëw mën a baax na ndax lapp taake bu ñu la dooree da ngay daanu te xale bu ne door nga ci sa laa ilaha illallah ay xale yi bëre nañu waay combat spécial bi neex na changement de jambe Ndefleng moo xaw sut tuuti nag xaw ko ëpp maas tuuti waaye lamb du ak maas dabante la ndeysaan xale yaa ngay lewtoo xale yaa ngay lewtoo ña ngay xeex ña ngay xeex ña ngay xeex ña ngay xeex ah laa ilaha illallah way lamb ji neex na di lamb ja neex na de lamb ja neex na ña ngay attention daf lang lang lay def lan moy am lan moy am lan moy am lan moy am arbitre souffle na neena ñew leen neena ñew leen avertissement a sorti neena ko ñewal ndeysaan maa ngi nuyu buur Saloum ndeysaan combat bi metti na de combat bi metti na xale yaa ngay bëre arbitre suuf la wan na arbitre suuf la wan na xeex bi metti na xale yaa ngi noonu ba nii di law Ndefleng Boy sen Ndefleng sani ne kou ñoom ñaar ñep sen garde niñ ko ajee ku ju dóor sa morom day metti attention attention Boy sen rentré na ko dorana na dóoraan na attention Boy sen ngi dóor Boy sen ngi dóor attention lu yam lu yam kaawo wala kaawo Boy sen ngay ngay nañu nañu nañu genn na genn na arbitre bi la ilaha illallah combat ba combat ba combat ba ilaha illallah ay combat ba arbitre la porte est la bi anamu ye ngi xex dañu attention mi door ñi attention attention luy am luy am luy am luy am ñi ngi xeex ñi xeex ñi xeex la ilaha illallah ay waay lambu neex na ñaari boy yi remplir nañ seen lu am ndef leng dem na ardo allahu akbar allahu akbar combat baa ngay neex combat baa ngay neex yan ma nee na ko ma ngi koy dey lan la ko Yane Mady Dey yan ma ko Yane Mady Dey ñu seeti Ndefleng ma nga nalee ndeysaan combat bi neex na 5 minutes 43 secondes xale yi bëri nañu xale yi bëri nañu laa ilaha illallah ay waay xale yi bëri nañu waay ah drapeau jibi ja bi nag neex na drapeau jibi ja neex na drapeau jibi buur weesu na neex fees na stade bi fees na dellu. Djibi Dia laa mos a gis ku ñu tegal combat daf ko juróomi combat stade bi fees del tëgg nañ dix combat te stade bi melul nii. il a créé la sensation une chose d'une grandeur nature tey këram rek bi ñu fa demee maa koy tooñ naan ko màggalu Touba nga ñu defaral parce que mission la ñu jox añ ñu ñëw stade bi feesaat dell daal di ala daw me. waaw mais buur mënoon nga maa woo. wallaay sama xel yëpp mi ngi si woon. mission bi laay wër. la ñu jox de. kon dinaa réeri. wallaay ñooy ànd. la jerejeuf bour Saloum jerejeuf Cheikh Diagne bu fayda baram lambu ji dimas, ndaysan lendi bu nek ci stade arbitre lu mu soufflé nee na mi-temps nee mi-temps mi-temps nañu mi-temps nañu mi-temps bi jeexna arbitre bi woon na len ginaaw biñu ñu 5 minutes ci diggante lañ ak ki nga xamé mom moy Boy sen, Boy sen moo ñu wan gannaaw Ndefleng woon ñu kanam légui na consigne lañuy ñuy fi, technicité lañuy ñuy fi ndeysaan ñu ngi leew too attention daw na jël ko daw na jël ko ñi ngi xeex ñi ngi xeex ñi ngi xeex génn nañ saako yi génn nañ génn nañ wala génnuñu arbitre ndeysaan ngi leew too leew too jeex na foofu jàppoon nañu jàppoon nañu jàppoon nañu de luy am jàppoon nañu laay lay la laa ku ci nekk tey nga sa ngembu moroom ñaari xale yi ñaari xale yi ku ci nekk tey nga sa ngembu moroom ku ci ne teye na sa ngembu moroom waaye kal bi dafa sori kal bi dafa sori kal bi dafa sori ndeysaan booy seen kal bi dafa sori def le nanga koy xëcc ñi ngi taxaw mbaa bëtu du am ndax bëtu du am attention ndax bëtu du am laa ilaha illallah xale yi bare nañu bare bu neex a neex a neex a neex attention attention li nga bëgg Ndefleng da koo xam moo tax mu ràcc ca gannaaw lay laay la laa ay waay xale yi waay combat bu neex lañ bëre Ndefleng door na ci suuf Ndefleng door na ci suuf lan moo am kan la ko bëgg kan la ko bëgg luñ bëgg luñ bëgg luñ bëgg luñ bëgg luñ bëgg ndeysaan ndeysaan arbitre arbitre dara amagul laa ilaha illallah ay waa ji mais xale yi mën nañ bëre de xale yi mën nañ bëre de xale yi mën nañ bëre ndef leen def na action mais léegi demul laa ilaha illallah ay waa ji waay mën a bëre waay lan mooy am arbitre ba souffler na combat bi metti na de sortie encore mais arbitre descend. soufflé à na xale yi sonn nañu de gis naa ci xale yi sonn nañu physique bi wax nañ tëgg bëre bi daa yàgg dafa metti te jàppante bi da ngay fournir effort ndeysaan ndef leng ndef leng ak boy seen ndef leng boy ndef leng boy Ndefleng Boy Sène Ndefleng Boy seen Ndefleng Boy Sène Boy Sène door na jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañu encore comme nañu defoon ku ne jàpp na saan la ñu defoon léegi nii Boy Sène bañ na bañ bi ndeysaan Ndefleng Boy Sène Ndefleng Boy Sène Kalba lan moo am na dara amul wala a ah, arbitre nee na Boy Sène daan nañ ko arbitre na daan nañ Boy seen arbitre nee na daan nañ Boy Sène wurewa dem na kang waxi ma dem na ngañ taali liñ doon waxtaane ci marché yi diko waxtane ci grand place yi diko waxtane ci rajo yi ndeysaan mom la ki nga xam moy mooy Laurent wara souffler soufflé drapeau Djibi ja directeur Chaperonnet digante cité sandiafu ñaari xala yaangi nonu ci bir ndeysaan cité moñu fété féete càmmooñ Sandiafou féete ñu jor ndeysaan stade bi neena tek combat bi ñepp doon xaar cité tank ba Sanjafu tank ndeyjoor ba arbitre ba daw na ma ngay ak ñeneen ñaaw arbitre ba nga ma ngay wax ak mali nee ko surveillal ñaari xalé yi dañu nek espoir litu kaulak ñaari xalé yi dañu ne champion ñepp di xaar kon lo ci def na leer taw si wat na ñëw na wax nak sanjafu wax nak Sita wax nak arbitre ya dess des la na la ilaha illallah combat ba démarré na ci diggante Sita sanjafu lew toba lew toba combat amateur yi Sandiafou mbéb na Sandiafou mbéb na jox ko cër jox cër jox ko cër joxante leen cër combat de la ku ci nekk sa buntu lamba ngi nii coy Yamoussoukh production ndeysaan li ngeen def rey na Siteu Sandiafou Siteu Sandiafou Siteu Sandiafou Siteu Sandiafou Leewtoo ba ngay dégg na ña ngay lewtoo Siteu Sandiafou ninki nanka écurie Adjuma Diouf laa ilaha illallah drapeau jibi jabi lan lay saf ña ngay lewtoo de Siteu Sandiafou lewtoo baa ngay dig Siteu ma ngay demee latéral un peu Sandiafou taxaw na laa ilaha illallah Siteu Sandiafou fii ci stadium Lamine Gueye bu Kaolack dimanche 23 octobre 2022 ndeysaan yag na goudé waye bi goudé wul 21 h 23 minutes 5 combats lañ fi tëgg waye yépp neex li ci gëna yéma nak moy stade bi fess dal ñëpp wuy si motax dal boy booy tëgg combat amateur ciow lo bari woon na wax ci bari woon na pourquoi 5 combats lu tax 5 combats waye li tax ñu nan 5 combats bi sa lambu da metti ku ci tëgg 10 combats da nga wara xol ni ngay def Sandiafou daw na dafa sori attention jàppante nañu jàppante nañu jàppante nañu Siteu Sandiafou jàppante nañu attention fii doole moo fi feeñ de attention attention laa ilaha illallah Siteu Sandiafou daan na ko daan na ko Sandiafou daan na Siteu Sandiafou daan na Siteu Sandiafou daan na Siteu laa ilaha illallah Sandiafou daan na Siteu Sandiafou daan na Siteu Sandiafou daan na Siteu saa nu ñu jos booy Dakar yi bëre booy ñoo la man ba Serigne Bamba. waxoon nga rek wane kii tey mu ne xam na nga bëree tey combat naa su ma ko jàppee mu jeex. maa ko mën maa ko doole barki alxuraan di gërëm mais maa ngi sant yàlla baax a baax maa ngi sant